Go kooku ah bërëg Lac de Guiers kooku kon xam nga ni jeexal na téere yi muy bëree na ku xiif gaynde gu xiif léegi nag foofu nag ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari champion la ñaari gaynde combat bu mag waaw loolu loolu ak ñi wax ni ama parewul combat bi du am petit patata ay waaj bi ne ta ñun les télévisions la ngañ lu mu daan def ñun da daan promotion pour làmb bi dox làmb bi neex làmb bi am ñëpp jëriñu ñun loolu lan daan def promotion léegi nag na ngeen ma baalaa yéen ñi yéen da ngeen di def anti promotion yéen kuy wax ni làmb bi du am rek ngeen dem tàllal ko seen micro kuy wax ni Ama Baldé dafa feebar ngeen tàllal ko mais loolooy gën a siiw mais bu dee ni ñun ñun de sa télé ba ma ne kenn du fa wax combat bi du am. non ñooñu waaw moom laa la wax ñooñu ñooñu ngeen koy tiimale ñooñu ñooy wax loolu mais bu ngeen ko tiimalee ñi xam làmb xam nga ni ngañ jañ mii boo ko ko joxoon micro bi du la ni làmb bi du am xëy na làmb bi mën na am problème ah loolu weddiwu ma ko de mënuma ko weddi de weddiwu ma loolu ngeen de mais du jox promotion làmb nan leen jox promotion boo déggee ñu naan làmb bi yàqu na làmb parce que léegi waxtu na waxu bëri léegi extra bëri la ñuy wax maanaam yeneen yi yeneen yi lañuy wax ci làmb mais làmb rek ngay bëgg a wax ci làmb nga bëgg wax ci bëre yaakaar naa ni mën nga cee wax lu bare bare ab lu koy yokk promotion waaw waaw waaw ñu nit loolu naqari na lu sorop vraiment loolu nag moom boo xoolee circonstances yi ni mu tegloo loolu moo koy indi xam naa ni sax moom ñu koy wax danoo gis ni làmb bi def na cinq ans te it leneen dinaa la ko tudd Modou Lo ba mu nekkee roi des arènes ba léegi lamb bëriwul lamb bi day indi ay xel ñaar loolu tamit nangu naa ko parce que moom it bëriwul te moom mooy roi des arènes te dafa war a bëri waaye nag nee na dafa gaañu ku gaañu lool ci man bu wéree amaa gaañu bu amaa wéree Balla Gaye feebar bu Balla wéree ëmb mooy wax xam naa ne mais nag mais nag nan def promotion parce que ay milliards ay millions lañ ci def nan def promotion. mais euh, ki nga xam moom la. non loolu dafa yàq làmb ay certificat médical ak nar certificat paramédical loolu moom dafa yàq làmb day moo teyal seen xel quoi ah? looloo teyal seen xel da ngeen di combattre non fii ñu toll xanaa keneen dootul indi ci certificat médical ñoom ñëpp pas nan leen ñaanal ñu wér le cinq et puis danoo bëgg combat boobu jógee fi voilà ñun combat bi ci boppam dañu bëgg mu jógee fi combat bi yorul làmb ji làmb ji moo yor combat bi. na combat bi joge fi ñun jublu ci beneen combat et xale yaa ngi nii di ñëw xale yi nga xam ne ñoo fiy jële ñoo ñu di bëree noonu xale yu ndaw war a mën a bëree làmb ji neex relève baa ngi taxaw xiif ah non mais Modou Lo dafa yàgg ci làmb xam na nu ñuy waajale bis yàgg na bëri ay grand combat yi ma leen fi léegi mais Ama mosut a ñëw ci làmb ba pare indiwul forme man mosuma ko gis mosuma gis ñëw ci làmb indiwul non combat bi mu des deux mois ñu ne amul forme mais d'ici deux mois yi mën naa defaru parce que war naa mën na defaru baax Ama du daw làmb du daw combat nag waxtaan wax dëgg ci la de. chance. techniquement ku dàq bëre Modou Lo bariwul bu dee am na it bariwul. techniquement waaye ama ar ñu xale bi mu yore sañ-sañ bi bëgg combat et bi bëgg combat bi loolu mën na cee am lu ne. mais ci xeex lay mën na noo sit la dóor kenn mu ci kaw ni ngay kii rek teg sa tànk ñu dóor la nga daan bien sûr mën na ci am de. mën nga daw it di jël ñu xajal la nga nërmeelu wala ñu mbott la. mbott dóor mu daanu mën na am ci combat parce que waaw ñoom ñaar doon la ñuy bëree. wala ñu yan moom laa wax man d'accorduma ci Ama parewul quoi. parce jeex. wax jeex baax na jeex baax na bu jeexee jeex baax na ah. pour jéem a yàq signature beeg yooyu. waaw waaw. mais noonu noonu la combat bee mel noonu rek combat tool enjeu bi moo fort Modou dafa daan Eumeu Sène te Ama Baldé Boy ñooy rakki Eumeu Sène te ñoo war a jël revanche bi ndax Modou Lo dina mën a li ngeen war a question la question mooy est-ce que Modou Lo mën na génn ak ñaari victoire biir Pikine ci actuellement nii bu ko dee mën na lu jafe lay doon c'est pas facile mu daan Eumeu mu daan mu daan mu daan Ama daan Boy c'est pas facile dafa am ku wax moment bi ci ah, waa muy Ama ak Modou Lo kenn téyewu ci làmb ji combat bi wala kenn téyewu ci combat bi ah, non làmb bi kenn kenn téyewu ndax làmb bu noo koy téye te bëreegu leen amul loolu ay waxu kii lër ay xon yeeg da koo jekkoog leen ma yëgal leen benn problème ngeen xam ko ci làmb néew ma galaaj bi amul de mais seetlu leen combat yëpp ki mën a daan seetlu leen rek keroog bi Balla Gaye di daan Yékini bi Balla Gaye man Balla Gaye da daan Bombardier Yékini man fuuf fuuf sax laa lay wax keroog bi Yékini di daan Balla Gaye numéro deux loolu xonq la ah Modou Lo bi muy bëri Eumeu Sène loolu xonq la xam nga lan la gëmuma loolu li ma gëm mooy mbër day entraîné ba wow koŋ baax physiquement door ci dolli loolu loolu plus la rek mais du lépp mais du lépp Ndiassane doo ci waa président bi ñuy tàggatoo daf ma fàttali Léopold Sédar Senghor en quatre vingt bi muy waaj a dem dafa ñëw si góor gi Sidi Yaxya Kunta booba moo nekk xalifa moom tamit andi Abdou Diouf ne ko dem avec l'article trente cinq doo am élection waaye Abdou Diouf laay démissionné moom mu yëg le premier janvier ñu yëgal Abdou Diouf loolu te Macky Sall def na loo xamante ni c'est pour la première fois un président de la République bu fi ne ñuy voté te bokkoo ci c'est pour la première fois loolu tam daw na yaram nag quand nag nit du yor réew mi douze ans di dem di seeti kilifa yi di leen tàggu te loolu du daw yaram loolu mënul ñàkk parce que ménante nag ñoom douze ans ngay fay dem chaque année nga dem seeti nit douze ans pendant douze ans boo ko demul ñaar yoon dem nga fa benn yoon boo demee ba war faa jóge na ñeneen war a ñëw xëccoo mais boo ñëwee di tàggu et puis sëriñ yooyu ay nit lañu yoo xamante ni l'islam lañ gëm te l'islam daa am yërmande yërmande l'islam boobu loolu la ci kilifa yi di réagir réagir wuñu neneen de li ñuy réagir mooy ñoom ay jullit lañu ay kilifa diine lañu jiite nañu ci l'islam le président de la République mi ngi tàggatoo bu ñëwee ni leen surtout mu toog ba càng ni ah sëñ bi man de bii mooy mujj dernière fois ma fiy ñëw balaa déwén keneen ay ñëw mais loolu dawul yaram ah <laughs> mais loolu daw na ci ko yor réew fukki at ak daw na yaram loolu rek ba discours ban lu mu wax ah Ba président non boobu duma ci tontu. boobu déedéet boobu boobu boobu sëriñ bi moo am sañ-sañam moo moom boppam moo ko wax du man wax du ma tontu ci waxu sëriñ ah sincèrement yow sëriñ bu mag lii dina wax fii ma koy tontu loolu ah Jakarta maa ni c'est des démocrates c'est des démocrates il faut respecter la démocratie il faut ñu ànd ci démocratie ku nekk ni ngay manifester ñoom noonu la ñu mën a manifester noonu moo nekk seen xol ah, et puis ci démocratie la bokk ah. mais benn mooy yooyu yëpp c'est la démocratie Amérique dëkku démocrate la amul président bu fay dem am say waa réew bu naqare leen dara ci yow te duñ fa taxaw ONU boobu du c'est pas la première fois président bu nekk fii ci àdduna bi nga dem Amérique te sa waa réew jeunes ya ñenn ña kontaanu ci yow ña kontaanul dinañ jël ay pancarte ñoo tax a buntu ONU ONU démocratie fa am Amérique démocratie fa am alkaati yooyu duñu dóor ñooñu de xalaatun ko sax dan lay wax rek puusal nga puus mais bokkuno ñun Afrique nga xamante ni boo jogee di manifester ñu tere la nga manifester wala ñu dàq la wala ñu sànni la lacrymogène fee Amérique la du ci kanam nga dinaa ko wax dinaa ko wax dinaa ànd ak moom ci campagne bi waaw di ma gis ak benn candidat fu mu dugg ma dugg fa jàppale ko ànd ak moom yóbbu ko pale ah foofu waaw day yomb de trop ah ay ba ay ay ay ba ci fan la bokk de toute façon di ngeen ma gis ma soo sama mbubu far féete ànd ak un candidat wër ak senegal Sénégal yéen naa ñëw seen koñ te bu ma ko indee bu ma ko indee ngeen jàppale ma ngeen voteel ko mu dem palais ah Youssou Ndour Youssou Ndour dafa nekk candidat Youssou ah waaw Youssou Ndour ne ah waxagul candidat la non déedéet yooyu day yomb man daal sama candidat te xam naa ni c'est le waaw foofu rek ah booy sama candidat c'est le meilleur. merci beaucoup. di daani sama waay la. jàmm ña jaara wusu. wala ma se jaara.